waaw waaw salaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di bu baax a baax di leen màggal rawatina mafia bi nga xam ne ñoom laa toogal quoi waaw sa waay di la siyaar nag bu baax a baax di la bëgg nag di jox ñëpp wàcc waay ah rawatina mboor mboor i ñaar tari Grand Dakar Pikine mafia bi ah xam nga gars yëpp maa ngi leen di bëggee fuy doomu mboor nekk rek maa ngi leen di bëggee rawatina mboor fi nga xam ne fi laa dëkk muy Grand Dakar gi ñaar tali maa ngi leen di nag bu baax a baax Franc de doomi Mbawar moo leen di bëggee yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay. ah. waaw ah, gis Franc mu neex ma rek gis ki li muy def ci làmb moo dax ma tudd ko sama bopp. bëgg koo raw ci làmb quoi. waaw yu ko raw sax mi ngi ci man. waaw. lépp a ngi si man. waaw waaw waaw bëgg na ma damay wàcc kay. waaw. nabay kay maa ngi dem di làmbatu waaw maa ngi bëre de waaw. waaw maa ngi nekk équipe Doudou ba Sarr waa di bëgg na gars yi ñëpp dafa nekk ñëpp sama gars yi xam nga ñoom jeex jaamu ay ñoom booy Dakar su ma lumee damay jum waa équipe bi ñoom Père Mbaye Faye ñëpp maa ngi leen siyaar bu baax a baax di leen jox seen waaj waajuwaay di wax ne la 11 incha allah booy Dakar yal na ko yàlla may ndam waa ay Sidor ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee Grand Dakar jur booy Bambara ñëpp bëgg naa leen. ah man ñi ma war a bëreel gars yi gars yi xamante nañ fi ñoo war a bëreel quoi waaw ay ay Mama Yanda Papa Yanda ay kii ay plateau ay caatu kolobaan ñoo ñëpp ay yoo xamante ne bi maanaam maa ngi ñoom lamb la dama doy la xam ne bu dee mbooloo dong ma macha ñoo ma ragalu lool man ñu daasa ñoo ñu waaw ah man kay gaa yooyu laay war a saa bu ma leen amoon jël de ah. waaw ak ay ay ku mel ne ay yanda boo yooyu noonu ah, ah, waaw yanda maa moom lamb ju neex la lamb la de waaw loolu ba tey sànde baa ji gars man suma sañantey balaa balaa maa am plateau damay ne ci leneen ba pare après papa plateau dóor loolu après ñu ñu croisé moom waaw Papa Bari Papa Bari bu Grand Yoff maa ngi moom làmb la ah. waaw. waaw man ragalu ma lool man ñu garaaw ñu laay wër déggoo ñoom la fi limal ñëpp kenn du ci nooy xam man wëruma lu nooy. déggoo li ma la wax man doomi mboor laa man su ma mënul bëre damay tooñ su ma doonul champion damay ah. waaw. ay Aliou Fatfat Aliou Fatfat dama may sens waaw bu fee bu bu waaw bu Kër Massar gaa yi ma may waaw la waaw man jàmbaar yi laay wër waaw jàmbaar rek mooy doon jàmbaar nag. taala bu jeex jàmm la doomu mboor bi maa ngi bëgg kuluxum di bëgg mboor mboor waaw tey. dañoo seet si Franc Franc mbër Franc bu mboor mboori waa gars yi nañ ko jël ah na ko gars yi jël na ko gars yi may ku ci mel ne Souley Gaynde grand frère moo ko daan jeex jàmm waaw na ñëw bu ko fekk bu daa bëgg a dugaat ci mboor mboori na ñëw Franc yi nii deful dara amul dara bu ñemee na ñëw ay Aliou Fatfat nañ ko may sant mu bëree ay ay Papa Sita ñoo ñëpp ay Papa Badji ñoom ñëpp na ñëw ñu bëree xam nga Franc la bu jugee mbooloo mooy jug bu jugee ñaari tal day jug Grand Dakar bi si téer yi mboor mboor yi tout waaw doomu caaren la doomu mboor la doomu fépp la nañ ko jël mu bëre xale la promoteur yi ñoo leen ngeen jël ko mboor mboor la mboor mboor moom xam nga leen seen sorte yi def yëpp ñoom ñoo daan ku ci ay dalfa ay aada booy bool ay jeex jàmm ñoom ñëpp ñoo daan te dañuy indi mbooloo mu takk Franc gi nii promoteur bu ko jël dootoo ko réccu waaw mm. waaw bu ragal dara ñoo taala li moo am sax. wallaahi. waaye ba ci Souley Gaye na ñoom ñëpp. ku ci bëgg ñeme naa la. ay nëpp booy parcelles yi booy yëpp ñeme naa leen am lu may tiit lu may ragal. ay Papa Sambé ñoom ñëpp. ay Papa Sambé ñoom ñëpp solo naa leen. amul lenn loo xam ne maa ngi tiit wala mel mboor mboor yi yëpp ngi sama ginnaaw. waaw ñoo ngi sa ginnaaw de. ma fi yaa baa ngi nii. waaw tuus yow. ñun daw ñu yoole de. ñun namu bis ci kaw ci kanam rek dañoo am ay royukaay. ñun namu bis. bilaay walaay dañoo namu bis dañoo bëgg a duyaat stade bi. Eh, waaw Modou Mbaye a ngi nii ñu koy wax Reug Reug numéro 2 moom xam nga. man du ma topp cuune quoi mais ñun xoolal mooy loolu dañ fa xam nga ñun dañuy yàgg bëgg suñu deret mooy loolu mbawar gi mooy loolu dañu gars yi bàyyi ñu bëre depuis bis bee ba léegi taw bi gaañ kañ lañ toog ñu ngi nii di entraîné waaye ci kii bi gaañ xam nga écrit géej gaañ mooy loolu mbër ngi nii gaañ mbëri may leen ko chance gaañ ñu bëree mooy loolu ah, ah ñun xoolal ñun Franc rek lañuy topp bilaay mbopat dafa toj fépp Kasoor ñaari tali Grand Dakar Fass amul fu mboppatul kon nanu booy jël ñu bëree kii ay 4 bloc lay jaay xale bu ndaw la benn combat la mosul bëri sëñ Modou Niang moo ko tëggaloon yàlla na ko yàlla yërëm nag te xaar ko àjjana quoi loolu na war a njëkkee mooy loolu noonu na promoteur yi gestu kii ñu bëree am na booy fi nekk ku si mel ne liir bu ngor booy yooyu noonu nan ñëw ñu bëri pa bari bari bu Grand Yoff ay bombal plateau ñoo ñaay adversaire am dafa war a bëree na paala bëgguñu ko ñoo ko man Papa Sambène nañu bëri Papa waaye mi ngi daano rek bu ndaw ko daan bu ndaw waaw dañu ñu bëri ah dafa jot Issa ñu tooyalaan ngemb li xam nga tooyal xaftaan bi ñun dañoo yàkkante bis yooyu noonu moog jeex jaamu fii bu ñu génnee rek mooy loolu noonu waa ñun ñoo rek lañuy topp billaahi waaw. waaw gis nga bar billaay walaay gars yi ñoo ma ko gën a bëgg sax nag gars yi bis bi billaay walaay ñoo ma ko gën soxla kon saa yi nii saa yi man toogaay toogaay moo jeex si man quoi man dama war a sëg bëree. yàlla xam na loolu man waaw waaw gis nga maa ngi sant nag wax dëgg yàlla sama gars yi ma toogal quoi ñoom Modou Mbaye xam nga ay ñoom Mor am ñoom Yiba rawatina sama booy bi quoi tala maa ngi koy sant bu baax ay bàcc ñi fi teew ñëpp di waaw di bëggee Mbaye Seck bu baax a baax waaw di bëggee sama booy ci ginnaaw ay ñoom Fallou xam nga ay Géraw Seras booy yëpp maa ngi leen di ay ñoom waa cag-cag bi xam nga ñoom Def ñoom xam nga ay Seex Mboro di bëgga waa Kastoor nag bu baax baax ñoom Moussa ñoom Bara xam nga roq ginaar su ma limee damay juum marché ngelaw maa ngi leen di bëggee lu bëree bëree bëri fii ba Pikine ma fiyaa Pikine bi fàttewu ma leen de maa ngi leen di bëggee bilaay walaay waa di bëggee waa Liberté 6 xam nga sama fu mu mboor mboor nekk waa parcelle parcelle suñu grand yi fa nekk rawatina ay góor a soog xam nga ay dalfa di bëgg ñëpp di bëgg waa Grand Dakar ñaar tali xam nga. waa diggu sott bi. ñëpp ñëpp maa ngi leen di bëggee su ma limee damay juum barke sëñ Bamba di bëggee sama waa écurie nag bu baax a baax a baax booy di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam nag waaw ñu am combat ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla quoi yàlla may leen ndam xam nga mooy loolu nag di bëgg waat ñëpp da wax nag xale laa te damaa bokk si te damaa war a bëree quoi waaw nañ ma jàppale ma bëree waaw man am ragaluma te am naa mbooloo macha allah kon damaa war a bëree waaw gars yi nañ ma gestu ndax damaa boo si làmb damaa am royukaay quoi mooy loolu maa ngi leen di bégg nag yéen ñëpp nag waaw di la bégg nag sa waay la jox sa wàccuwaay saa maa ngi lay bégg bu bëree bëree bëri